Alhamdulillah, hi gëm bur yàlla war naa te gëm dogalam yandeem sunu di ne wér naa ilaahina ñi lay ñaan saa limaan bi jaahi imaam wallaahi yàlla war na te gëm dogalam yendem sunu diine wér na lu yàlla dogal ci ab jaamam manul jaas dinay am faw wa ndax ateem ba daw na lu jiito amook bindee fii ci ay juniyaat la yàlla dogal dogal ya loolu wóor ba looloo tax lu yàlla dogal ci jaam du dañ ci pexeem mi ndeef ndem yàlla bañ xanaa moo tax sëriñ bay Baabakar laaj di bàyyi njaboot gi nii bañ a toog xuróona ngi lay ñaan saa kilima bi jaali imaam mi lay sangoob jamaana banaa moo tax sëriñ mbay Babacar laay di bàyyi njaboot gi nii bañ a toog xoroona demam njeebeet tawaa duniyaa ci mbooleem ñi xam mbay Babacar seen xol lëndëm na laayen goo xam ni amatul Seydina Mbay xanaa asamaaw su amatul jant xam naa fu nuy la xooti moo fu nu deeti dow jëm ka doon yaakaari àddina jépp dem naa mindeef la mu yàlla amaloon ngir ga xaajoy mindeef yi ku jaaxle waa ba jubal faraw naa moo demoon ba ko diwaar ba jàll gi ne ci gànnaar fépp siiw te nambala woon bu feeñoon fii ci Cap Vert te doon meññee ci Mahdi yu loolu wér na ina bijaahi maan mi lay sangook jamaana ci dandaloon bu feeñoon fii ci kafeer te doon meññeet ci mahdi loolu wér na nanguk ñaanaak fajuk aajo ki feebar donoom ci imaamu lahilata loolu sax na fu ni xoolee ti bàyyi lay ciw melomaak doxin waak waax ja xumba janiir wa dem naa addina yaa di aboorkat ndekon kay nga ànd ak Babakar mu jariñ jamaana bu fekkoon de lu nuy mën a jot la kon kay nu jot ko ci doy ba du faatulaana بالإيمان بجاه إيمان ملايسة غوب جمعنا وفكون ديلو نيما نجوت لكون كي nu jot ko ci ruu yu doy ba du faatu laana waxal neel géej la woon gu du fuut yëpp xam-xam ci zaahira ci baatin loolu wér na تخاك لخاك نحوك تاريخ عرضاك بيان سيراك حديث تفسير قرآنا بدان حديث كلنا كي دنجيم te ànd xol bu féex ba nga naa rafet naa limaamul maa di yoo ko soloon ci baatin ci géej xikam la duy banda bam fengat naa gi lay ñaan saa silimaan bi jaayi maam mi lay sango jamaana limaamul mahdi ko soloon ci baatin ci géej gi xikam la duy ba dabam fengat naa ci leetar ya bay laay jàngaloo woon sëriñ mbay caw keroog la ko sol baraw naa ba bay na naa ko mbay ku la laaj sa meetar ci xam-xam ne limaamu sangoob jamaana ku lay laaj meetaru bay laay waxal neel xanaa bur rabbul aalamiina sëriñ bay daane nettali lii miraaran ba moo tax xam-xamam ku ka xam ne yey naa ku laay te xam bay mbay te gis ka demam dem xol ba jaay imaam mi laay sangoob te xam mbay laay te xam mbay te gis ka dinay teg ceeg demam dem xol ba yiw naa malaaka ya sax xëccoo nañu ruuga ñii na dem tey ñii bu mu dem fan we des keroo bay xamoon na ba dellu ximmina man de gis naa lu dul jaas diig bi ñëw naa limaamoo di may woo faw dem malaaka yi ñooy werante ni saa ci jot ci at mu deewaaf sa sin ci gàddaayu yoon nen la bay mbay ci bay lay yi naa ci weer wu di maamu koor ci kohun ca weer waa ci altine loolu mooy taarix ba weer naa keroog ba ñu ne sëriñ bay caw nelaw na ku xam mbay bu sell xolam lëndëm na sëriñ bay caw nelaw naa ku xam mbay mbay bu sell xolam lëndëm naa malaaka naa ruuxam galeen romboon ba wéy jibaal yu ak bu yi géeye ci jooy naa bëjën ya di sàbbal mbër nelaw naa garab yeeg suuf yi ak asamaaw yi jooy na ci ak faatoom ku dul ko xol ba dee na na bee waaju am xam-xam bu faatoo ku tiitul moo di ab naa feex a weer te ab naa feex a jahannama moo di néegam ca la jëm ca asfala saafiliina naawdu billah yal nañu yàlla jàmmal te xiñ ci topp yoon wa nga xam ne wér naa ngi lay ñaan sa imaam bi yaay imaam bi lay sangoob jamaana naasu billahi yal nañu yàlla jàmmal te xiir ñi ci toppa yoon wa nga xam ne wér na xarit yow kaay nu waxtaan seetlu dunya xalam ni mu def ñoñam ndax xel lu jot na bu àddina doon kërug beel kay dinay yor ñu baax ñu fi jiitu woon du ñu jóg jamaana yonente ye yàlla daa wax yook ñu baax ñaak ñu doon wàlli yoog saxaaba ya ñepp a dem na amoon nañu yàlla jey def leen ñu di boor demoon ba dina gu tey seen ya fanax na ña yàlla jeyoon ñu moom duniyaa ca penkook sawak mbooleem diggante ba ñepp a dem na ñi lay ñaan saa ci iman bi jaay ñi lay sangoo jamaana ña yàlla jayoon ñu moom dunya ca penkook sa wax mbooleem diggante ba ñépp dem na damel ya sa woon baraat yaag teeñ ak seen jaraaf yaak daas ya tey ñi ñépp ñu bax ñi fi daan dunda lislaam ci duniya ku mel ni limaamu a seex bamba seex naa te mooy seex sax di bopp alhaaji maalik ku jàppi mbiram ca seexu omar kamal naa alhaaji omar ma daan xeex ngir gal islaam kada alxaaji ablaay ñaas jiyaar naa sëriñ kene baag sëriñ bokkunte ñi ñépp ñu baax la ñu woon te tey ku ci nekk dem naa bu àddina doon te rugbel kay dina yor rasulullahi kon du jook jamaana te moom jamaana bu àddina door këru mbeel kay dinay yor rasulullahi kon te du jamaana bu àddina doon këru mbeel kay dinay yor sahaba rasulillahi ña am la maana bu àddina doon këru mbeel kay dinay yor limaamullaahi kon dina saax korona bu addina doon karug bel kay dinay yor isa ruuxul ilaahi boroom jamaana bu addina doon karug bel kay sëriñ mbay dinay saxoof njaboot gi du faatulaana الرحمن بجاه ما إلهي سمو جمعنا وعدنا دوم ترميل كي سرين بي دين سخوف نجبور جدو فاتولانا إلهي يال نغي توني روخي وال ci bay mbay muy karaama ca illayna fa bay mbay feete woon na fa yàlla wutal loxoom ak yërmandeem ba ñu am la te may ñu ma ñoor mu sax ci njaboot gu yor leen ne kon du ñu jaaxle moo di kamaal te doy na ma ñoon yaay waaju mat ku lay xam dinay ñaan sa wi di wéy di dem ba am xuróona ite yaa fii ka doon takkandeeru baay laay ci góor ñi bu kenn mayuux ma njoona ñu ngi ñaan yàlla bàyyi la feek njaboot geek julit ñëpp ndax nga dekkol xol yi wet na ñu ngi ñaan yàlla boole njaboot gu ci wiw defal nu ci fépp fu jëm am la maanaam di mel nu ba képp koo gis mooy saxoona alhamdulillahi rabbil alamina saxal ñu ci diine may num koom te bañ noo na toog cig beew walak ñàkkaat di sonna ilaahi noo ngi lay ñaan sax ci imaan bijaahi imaami ray sango bi jamaana salaatullah ثم سلام ربي على المختار خير العالمين ثم سلام ربي على المختار خير العالمين صلاة الله ثم سلام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 فن والملك الدائم إمام المرسلين بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم